Elhadji Ousseynou Ndiaye dalee jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la xëyandoo ñu daal di doo rëg le soleil yéenekaay gi du xamale lépp loo xam ne rek jëm na ci jàngoroy covid gi tolluwaay gi ci réewum Sénégal ma ngay gën a jaaxal ñii nga xam ne rek ñoo fi yeewoo yi docteur Abdoulaye Bousso ci gi du xamale jamono ji kay mbir ya kay ma ngay gën di wulee ñaay bu ñu jaawale jàngoro ji nga xam ne rek moo di coronavirus ak Ebola yéenekaay gi gi li ñu Joal fekk a waaye nag loolee bu xewee ak sàgganteeg yi bokk na ci waaye nag jamono ji ñoom kay dafa mel ni dañu koo yëgalu seen yaram source ay dina xamale jamono ji nag bilan baa ngay gën di yokk mbir yaa ngay gën di yëg am na ci ñoo xam ne itam faatu nañ ci jàngoroy covid 19 gi ci tolluwaay gi ci réewum Sénégal yéenekaay gi ñoo juróomi nit ñoo faatu ci jàngoroy covid gi ci réewum Sénégal ak tolluwaay gi waaye tamit am na lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar yoo xam ne jamono ji li nga xam ne rek moo jaaxal askan jaaxal àdduna jaaxal tamit réewum Sénégal mooy cas communautaire nii nga xam ne rek noonu lay bëree ci réewum Sénégal yéene kaay gi duñu xamale loole tax kay jël nañu dogal tëju marché Ocass maanaam daal marché Ocass des na ko tëj ci ñetti fan daal xool loolee Amérique am na ci réewum Sénégal yi nga ci ay marché yi nekkee ci réewum Sénégal fekk jamono ci wàllu masque yi ci réewum Sénégal ci Abdou moom kay kàddu yi nga xam ne rek moom la yëkkati masque yi dinañ ko takk yéenekaay gi dañu xamal boo gisee nag Sénégalais yi li tax ñu tàmbalee takk masque masque yii dakk der ba ñu cee làpp nit fekk jamono jojee L'Observateur yéenekaay di ñu xamal ne loolee ñuy làppee ngir bañ yi tey laal leen wax maanaam daal juróomi nit yi nga na bu di nga xam ne rek moo nekkoon Ziguinchor tamit ak góor gi nga xam ne rek moo mujjee faatu ñoom kay mooy ñi nga xam ne jàngoro Covid 19 ji jot na leen a yóbbu ci réewum Sénégal fekk yi nga xam ne rek am na fa ñaar fukki kaay xam ne rek jotas na ko faa wàññi jotas ñett ya di ay cas communautaire yéene kaay gi du ñu ne tamit Medina nii nga xam ne rek noonu la ñuy ci wàllu ko takk der yeeg mel am na lu toll juróom-ñett fukk ak juróom ñoo xam ne rek jot nañ leen a teg la critique yéen moom nag di laajte mbas mii nga xam ne rek moo xew di covid ndogalu suñ borom la wala balaa Elhadji Ousseynou Ndiaye